jotee wax ci local yi a ngi woon ak wàllu mais tey aussi ñu ngi ñu ngi ñu mbir mi mu ngi avancé nous sommes à six sept mois des élections présidentielles tey LD Debout fan la affilié wu ak ci lan la nekk. waa xam nga ba léegi nii nekkuñu ci jeu bu parce que il faut comprendre une chose contrairement peut-être à beaucoup de partie yi nga xamante ni li leen soxal mooy nguur forcément nguur nguuru. parce que tey xëy na euh, yaa ngi koy wax am na ñoo xam ne dañ naan est-ce que am ngeen doole voilà euh, le soubassement de oui mais xam nga xam nga veille aussi mun naa nekk parce que xam na tey am na ñoo xamante ni ci ñun bu fekkoon nguur rek la xëy na des nañu ci Benno Bokk Yaakaar wala dem nañu ci parti yoo xamante ni parce que am nañu xam-xam bi am nañu vécu bi am nañu expérience bi si c'est juste pour nguuru wala pour nekk foo xamante ni da ngay jël nguur xëy na mënoon nañoo génn LD wala ñu génn LD debout wala dem ci leneen. Mm-hmm. mais xam nga veille boobu comme ni nga koy waxee dafa am solo cest à que les partis de gauche au départ c'était pas des parti de masse c'était des parti de classe. Mm-hmm. mooy lan du forcément c'est-à-dire que mbooloo bu rëy la ñuy wut. Mm-hmm. qualité bi daf ci am solo qualité boobu itam day permettre parce que une opposition de qualité. elle est toujours très bien meilleure même qu'un pouvoir de qualité. parce que moom mooy pousser le pouvoir à avoir de la qualité loolu aussi dañ koy fàtte quoi du forcément et boo xoolee d'ailleurs li gën a tardeel Sénégal je pense ci ñaari alternance yi loolu la parce que dès qu'il alternance toute l'opposition se retrouve au pouvoir